mbokki xarit yi yéen a ngi ñaal euh, cant ak gërëm ñu ànd ak ngeen ci seen télévision Al Mourabitoun ñu fase ñëw ngeen ci seen i di ko tàmbaleek euh, boppi xibaar yi jëwriñ ji di amal ndaje euh, beneen ndaje laata bés biñ koy amal loolu nag li ko waral wax nañ ne tukki bi nga xam ne njiitum réew mi war na ko amal ci ngir mën a teewee sommet bi ñu war a amal fii ci Afrique liggéeykat yeeg société Tasias di amal ab taxawaayu ñaxtu ci kanamu euh, direction générale des impôts fi ci Nouakchott ngir euh, ñi ñaan ngir ñu delloo leen euh, seeni àq équipe nationale Mourabitoun di génn ci qualification coupe mondiale 2018 ginnaaw ñaari yoon yi ñu yàqule ci kanamu les aigles du Carthage mbokki xarit yi dalee nag euh, jàmm ci seen i xibaar ni leen ko digtalee ci boppi xibaar yi euh, jëwriñ ji di amal euh, ndaje ci njiitalu moom njiitum réew mi di Mouhamed Ould Abdoul Aziz benn bës laata ñuy laata ñuy yegg ci ci bés bu njëkk laata bës biñ koy amal Euh, fii ci réew mi euh, ci biir loolu nag euh, mu mel ni wax nañu nag li ko waral moo di tukki bi njiitum réew mi war a amal ngir mën a teewe sommet bi nga xam ne moom lañu ñu war a amal fii ci réew mi di Tchad ca capital ba di N'Djamena ci biir loolu nag kon jot nañu rek waxtaanee. Euh, li nga xamante ne nag moo di projet yi nga xam moom la ñu war a euh, dëppoo euh, ci maanaam moom la war a signé ci fi nga xamante ne nag moo di biir réew mi wante liggéey yi nga xamante ne moom lañu ñu war a amal fii ci biir réew mi. liggéeykat yi société Tazias di amal ab taxawaay taxawaay ñaxtu ci kanamu. Euh, maanaam fi nga xamante nag moo di euh, direction euh, général des impôts ci Nouakchott ngir kon ñaan ngir ñu delloo leen li nga xamante nag moo di seen àq ginnaaw bi nga xamante ne nag wàññi nañ leen foofu société bi kon ñenn ñi itam gis nañ ni kon dañoo def départ volontaire kon loolu la société bi xamle ci loolu nag ñoom ñi nga xamante nag ñoo amaloon taxawaay boobule li ñuy ñaan moo di fi nga xamante nag moo di direction général des impôts impôt kon mën a yónnee euh, fële ca këruk Tasias ngir ñu man leen euh, delloo leen nga xamante nag moo di euh, seen i àq di ñeen war a kon delloo ginnaaw bi nga xamante ni nag wàññi nañ leen ci foofu nga xamante nag moo di société Tasias ci wàllub euh, politique ñu ñëw ak forum national démocratique ak unité ginnaaw commission bi mu faloon mu doon euh, commission bi nga xamante ne nag moo war a kon dajale euh, bopp yi nga xamante ne nag ñoo nekk ci biir forum national démocratique ak unité ngir ñu mën a kon bokk benn kàddu bi nga xamante ne nag moom la ñu war a kon tonto wooteek kii di secrétaire généralu nguur gi. Euh, di euh, ki nga xamante nag moo di mu Ould Mouhamed Lakraf ci biir loolu nag mu mel ni euh, boobu ba tey wax nañ ni ñi ngi amal mbir mi lu toll ci une semaine boobu ba tey mënaguñu dajale ñi nga xamante nag ñoo di kuréel yooyu le kuréel politique yi nekk ci biir forum national kon ba tey dëppooguñu ngir ñu amal lool nga xamante nag moo di beneen ndaje bi ñu war a seq ak nguur gi ci lu aju ci wàllub dialogue bi nga xam moom ñu fas yéene amal ci réew mi ci biir ba tey kon forum bi mënagul génn ab ab décision euh, bi nga xamante ne nag moom la war a tontoo euh, ki nga xamante ne nag moo di euh, li nga xam moo di wooteeg secrétaire généralu nguur gi ngir ñu ñëw ci dialogue national bi ñu fi war a amal. tàmbalitu li nga xamante ne moo di lii di ndaje mu rëy bi nga xamante ne nag moom la ñu amal fii ci biir mi mu doon euh, forum international koppar ak lii di komok islamique fii ci biir réew mi mu mel ni nag tey moo di ñaareelu euh, bés bi nga xamante ne nag ci la amal loolu di ndaje euh, moomule ñu wax rek ni ndaje mi nag kon ñu ngi ko amal ci ndimbaluk centre Shingiti bi yor wàllu ba koppar islamique ak li nga xamante ne moo di kuréel bi ñu naan lii di rassemblement euh, ngir euh, yokkute ak lu ñuy wax euh, citoyenneté ci biir loolu nag mu doonoon ab ndaje mu nga xamante nag liñ ci jublu moo di mën a fexe ba rek taxawal li nga xamante nag moo di solution ñu war a teg ci jafe yi nga xamante ne moom la koomub islamique di jànkonteel mën a indi saafara ci jafe-jafe yooyu ci ñi nga xamante nag ñoo yëngu ci wàllu koomub islamique fii ci Afrique wante rawatina fi nga xamante ne nag moo di réew Mauritanie njiitum forum national démocratique ak unité ba tey euh, di ki nga xamante nag moo di wul boo bay nii euh, di euh, amaak jotaay kon ki nga xamante moo di ambassadeur uk France di Joël Meyer ci fi nga xamante nag moo di siège uk forum national démocratique ak unité ci ba loolu ñu gis ne rek ne nag maanaam jotaay bi kon am na lu bëre ci du ñu doon waxtaane bokk na ci di ci gën a fës wàllu dialogue national dialogue national bi ñu war a amal seen diggante ak kujj gi wante ci euh, li nga xamante nag moo di euh, maanaam li di décision forum national wante seen taxawaay ci dialogue boobule ñu fàttaliku ba tey rek ne li nga xamante nag moo di jotaay yi jëriñ ji ji amal dafa bokk rek ci jotaay yi nga xam ne moom lay am ak ak ñii di euh, njiitik politique yi fi kujjug politique njiitik kuréeli politique yi Euh, fi ci biir réew mi kon mu mel ni jot na am ak kii di njiitum euh, IPR di ki nga xamante nag moo di euh, Wul Maham jotaay bu mel ni jotaay bii ni ci loolu nag muy xamle ne nag France ba tey ñi ngi am kontante gu rëy kon ba tey dinañu dooleel loolu nga xamante ne moo di dialogue national bi ñu war a amal fii ci biir réew mi ci wàllu ba wóoróom bi ak ndaje mu bi nga xamante nag moom la kër jëwriñ ji ñu dénk wàllu ba wóoróom bi ak yokkute buy woy bi amaloon fi ci biir réew mi mu doonoon ndaje bi nga xamante ne nag dañ ci doon waxtaanee euh, kon bokk bi nga xamante moo Mauritanie war na ko bokk ci euh, fi nga xamante ne nag kon moo di some sommet euh, climat bi ñu war a amal ca Paris Euh, ci weer wi ci njeexlatu weer wi ñu nekk ci loolu ki nga xamante nag moo di euh, jëwriñ ji ñu dénk wàllub euh, wóoróom bi fii ci biir réew mi di Amady kamara di xamle na nag li nga xam ne moo di changement climatique bi fii ci biir réew mi sonal na lool askan wi rawatina nag li nga xamante nag ñoo di komuk réew mi ci ba loolu ki nga xamante nag moo di Joël Mayer di ambassadeur France ci beneen wàll li mu xamle moo di mbir moomu nag di loolu di ndaje moom nga xam ndaje climat la bu ñu war a amal ca France doon lu nga xamante nag luy soxal àdduna bi euh, wépp la. Euh, ci beneen lël kon ba nga xamante ne moom lañu ñu amaloon fii ci biir réew mi ci teewaayu ay euh, borom xam-xam ay professeur université ñu amaloon ko fii ci biir réew mi ci fi nga xamante ne nag moo di bërëb bi di centre bi yor wàllub recherche ak étude humaine fii ci biir réew mi ñu naan ko Mabda. kon mu doon ab ndaje mu rëy mu nga xamante ne nag dañ ci doon euh, waxtaanee euh, ñi nga xamante ne nag kon ñoo sos réewum Mauritanie euh, kon ñi nga xamante ñoo di ñii di fondateur yi réew mi kon ci biir itam waxtaanee nañu jafe-jafe yi nga xamante ne nag moo amoon ci conquête yi amoon fii ci biir réew mi wante li nga xamante ne moo di projet réew mi wante kon nguur yi nga xamante ne nag jot nañu jaar fii ci biir réewum Mauritanie bi ñu amee indépendance euh, ba tey mu doonoon ab euh, mbir mu nga xamante ne nag njàngale mu rëy la kon euh, ñooñu di kilifa yooyu amaloon ko foofu nga xamante nag moo di centre Mauritanie bi yor wàllub étude ak recherche humaine fii ci biir réew mi. équipe nationale di génn ci li nga xamante ne nag moo di li di qualification. Euh, coupe du monde 2018 euh, euh, ginnaaw bi nga xamante nag am nañu yàqule nañu ñaari yoon ci kanamuk les aigles di Carthage di équipe nationale Tunisie kon ñu gis ne rek fu ñu toll nii équipe nationale kon daal di nañu rek ñàkk lool nga xamante ne nag kon moo di qualification yooyu la ginnaaw ñaari bal ci benn yi nga xamante ni nag équipe Tunisie dóor nañ leen ko ale fii ci biir Nouakchott wante retour itam ca fële nga xamante ni nag kon moo di euh, Tunisie jëwriñ ji ñu dénk wàllub pétrole ak mine fii ci biir réew mi di inauguré li nga xamante ne nag kon moo di ab usine bu rëy bi nga xam moom la ñu euh, rek sos fële ca euh, Galbe euh, 2 maanaam di Galbeznijn mu doonoon ab usine bu rëy bu nga xamante ne nag gis nañ ne kon dina rek maanaam produire lu toll ci ñeenti million ton kon at mu jot ci wàllu ba li nga xamante nag moo di fer euh, itam mu doon ab kon ab usine bu rëy bi nga xamante ne nag luy amal solo réew mi la ci ba loolu itam dinañ ci mën a jël lu toll ci junni liggéeykat ci loolu nga xamante ne nag moom euh, moo di ab usine bu bees boobu nga xamante ne nag moom la ñu rek inauguré tey ci suba euh, fële nga euh, démb ci suba euh, ngeen baal ma li nga xamante ne nag moo di galb de ci fi nga xamante ne nag moo di Zouérate ñu gis na nag doon na ab usine bu nga xamante ne nag gis nañ ni dafay gën a ubbi buntuk li nga xamante ne nag moo di xeex lu ñuy wax chômage ci réew mi wante gën a rek taxaw ci li nga xamante ne moo di wàllub production lii di wàllub fer bi ñu jeexale ak yéen ci li nga xamante ne nag kon moo di ab taxawaay ñaxtu bu rëy bi nga xamante ne nag ñi nekk di liggéey ci boutique Emely kon amaloon nañ ko ci kanamu euh, njiitum kër njiitum jëwriñ ji euh, fi ci biir Nouakchott ñoom li ñuy ñaan euh, moo di daal ñu jagleel leen li nga xamante ne nag moo di ay contrat wante ci biir loolu itam ñu man leen kon taxawal li nga xamante ne nag moo di assurance ci wàllu wér yaram ci biir loolu ki nga xamante ne nag nag moo di wax ci trug kon ñooñu di liggéeykattu programme boobu di programme mu ML kon gis nañu nag ba tey kon nguur gi ba tey taxawaguñu euh, ci defal leen lu mel noonu wante gis nañ ni kër jiw di ñu dénk wàllu ba euh, njënd ak njaay dañoo yàqule ci projet euh, bi nga xamante ne nag moo di dañoo yàqule ci maanaam doxalinu ko projet bi di projet ML. ci ba loolu ba tey mënaguñu euh, ba tey euh, taxaw euh, ci maanaam àqu ñi nga xamante ne nag ñoo di liggéey yi programme boobu di programme ML ngir mën leen jagleel ay contrat yu wóor wante itam mën leen jagleel li nga xamante ne nag moo di assurance li di wàllub wér-gu-yaram fii ci biir réew mi mbokk xarit yi fii la ñu yem ak yéen ci seen i xibaar du ñu def lu dul dellu seeg yéen ci boppi xibaar yi jëwriñ ji di amal ndaje euh, beneen ndaje euh, laata euh, bés biñ koy amal loolu nag li ko waral wax nañ ne tukki bi nga xam ne njiitum réew mi war na ko amal ci ngir mën a teewee sommet bi ñu war a amal fii ci Afrique. liggéeykat yi Tazias Kingoros Tazias di amal ab taxawaayu ñaxtu ci kanamu direction des général direction générale des impôts fi ci Nouakchott di ñaan ngir ñu delloo leen seeni àq. équipe nationale Mourabitoun di génn ci qualification euh, mondiale 2018 yu ñu njoon amal ginnaaw euh, ñaari yoon yi ñu yàqule ci kanamu les aigles du Carthage. mbokk xarit fii la ñuy yem ak ci seen i xibaar duñu def lu dul di leen jox euh, dig daje ba ëllëg incha allah di rafetlu ànd bàkkolute bi ak télévision Al Mourabitoun di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.